Et bonsoir à tout le plateau. alors euh, Aliou Sall yow yaa nekkoon ancien maire de Guédiawaye ancien directeur général de la caisse de dépôt et de consignation euh, alors Aliou Sall euh, sa réaction une sage décision une décision historique ou nu mu tudd un code d'honneur incarné et assumé par Macky sincèrement d'abord man ce que je prends en compte mooy le code d'honneur et la prise en compte de la dignité. Euh, pour simplement dire que man, en ce qui me concerne, connaissant les valeurs qui son celles de la famille de Macky Sall et euh, qui sont celles de sa communauté aussi de Fatick décision bu mel nii donte ñun ñi ëpp ci militants yi woowuñ ko ci woon leneen lañ ko doon woo man suma wàllu bopp bett ma ndax xamoon naa ni quelle que soit la situation Macky Sall dina jox poids bu am solo la parole donnée xamoon naa ne tamit dina jox poids bu am solo le fait que candidature am xëy na mënoon na indi werante à gauche à droite donte constitution bi mayoon na ko ko xamoon naa ne dina jël en contre image du Sénégal au plan international xamoon naa ne dina jël en compte la stabilité di pays loolu yëpp nag soo ko boolee dafay mel ni man en tout cas personnellement am naa ci mbégte boo xam ne tey xëy na dafa xaw a tolloo ak jour bi nga xamante ni fal nañ ko muy président de la république loolu daal moo ci sama sentiment li ci def nag mooy li nga xam ne ñoom Ablaye Sow ñu ngi koy wax foofu lii mu def nii siggil na Sénégal euh, yeewaat na indiwaat na ngor ci wàllu politique waaye indiwaat na aussi euh, courage te courage bi mooy Euh, donte mbir mi euh, li gën a yomb wala li gënoon a neex ci ñun ak ci partem ak ci coalition mooy nekkaat candidat euh, wane na ne moom intérêt jiite lu ko waaye intérêt Sénégal moom mooy jiite. alors ça c'est la réaction du politique alors est-ce qu'est-ce que le grand le petit frère ban message ngay transmettre au grand frère. du du du xanaa lui dire comme j'ai eu l'occasion de lui dire tout de suite il même pas une vingtaine de minutes que il fait la fierté de sa famille wax dëgg yàlla amoon nañ fierté bu mag le fait am mag bu nekk président de la république du Sénégal waaye tey man fierté bi ma am ak bi ay yeneeni rakkam ak i magam am moo ëpp fu fierté boobu parce que daf ñuy delloo si comme ni ma ko waxee si sànq ci ay jàngale yoo xam ne ñoom ñooy jàngale ay waajuram ay jàngale yoo xam ne ñoom ñooy jàngale ay communauté am daal di wane ne ngor avant tout dignité avant tout Euh, donte nag politique xeex la xëccoo la amoon na tous les atouts pour nangu ko waaye wax dëgg yàlla tey sentiment de fierté boobu laa demoon waxi ko te ku ci nekk képp ku xam ku nekk observateur xam nga ne raar nag ku mel ne Aliou Sall naan bu ngay dem palais du président de la République waaye tey gannaaw ba ma ko déggee mënu ma ko woon muñ il fallait que ma dem ba foofu jàkkaarloog moom te bi ma ko gisee gis naa nit koo xamante ni comme ni mu koy wonee saa su nekk ku ànd ak sérénité ku ànd ak joie laa koy mën ti wax Euh, waaye ku ànd ak daal ku ànd ak fierté donc loolu daal mooy sentiment le frère bi ma leen euh, mën a wax. merci beaucoup Aliou Sall